asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu santate yàlla julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ndokkeel ak jaajëfal mboole mbokk yi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel seen seen bu am solo bii muy le grand secret à wolof muy seen boo xam ne dara taxu kaa jug lu dul lenn ci aajo yi nga xam ne yéen a ngi koy am te mënoo leen kaa fajal seen bopp mu leen di xamal yoon yi ngeen di jaar ba aajo jooju mën a faju te lépp nag génnul alquran tay ji nak fu mbokk yi dañ leen fas indil ben secret bo xamne bu am solo la kep ko xamne da nga nek ci bi tuba bi di jëflante ak ñoom am ci ñoom xaaliss jafé la ngal la na nga fexé ba def secret bi inshallah allah boo rek suñu borom dina la tagatal ñoñu bu baax mo xam muy bo la nar nit ku wéx rek. ana bari ñuy sori dañ lay wax yow mi nga xamne yaa vidéo bi bu fekké né abonné ko ci seen bi nga abonné tay partage vidéo yi mu gëna yaatu ndax vidéo yi ni ko ci bi yépp ay vidéo yi njariñ kessa la yow mi nga xamne da nga bëgg def lu listixaar man nga ñu contacter ci numéro bi 77 684 28 28 dañuy def listixaar à distance fo mëna a nekk ci aduna bi rek bo ñu contacter inshallah rabbi des na la defal listixaar gu leer nañ ñi inshallah yow mi nga xamne da nga wo timit walu ñaan fo mëna a nekk ci aduna bi inshallah rabbi bo yittewoo walu ñaan des na la ci jappalé bu baax baax baax di la wax ngeen continuer di abonné tey gën a partage vidéo yi waa secret bi pour nga jëfandikoo ko nekkut lu jafe lu simple la aaya bi aaya bordu la bu ñuy wax wala ka saw bay abratin wadanan zikral xiyaami wa sikra shaakinil xiyaami mais xiyaami gi nag dañoo tijji miim gi boo noppee ci loolu nga bind ina ataynaakal kawsara fasal li rabbika wanhar inna shaani aka huwa labtar moom nga bind ko ben yoon maanaam baytu bord bi ngay bind boo ko bindee nga yaatal miim xiyami gi def ci sa tur daa di bindaat ina aataynakal kawsara fasalli rabbika wanhari inna shaani aka huwa labtar moomin nga bind ko benn yoon soo ko bindee xiyam yi foofu da dugal sa ak cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze moom ngay dugal foofu bu fekkee ne xam nga turu ka nga xam ne da ngaa soxla ci moom xaalis ci cinq mille neuf cent quatre dugal man ngaa dugal ci turu kooka ak sa bu fekkee ne xamoo ko nag nga xam ne danga nga kaa bëgg maanaam ñoom ñu defal la ak jubu di la jox xéewal bu boobaa mën nga fi dugal cinq mille neuf cent Euh, boo ko defee saafara nga koy def heure boo xëyee da nga ciy naan ñetti guux nga salmu ci incha allah rabbi yo dox jëmal ci ñoom suñ boroom dina la ko tàggatal te ñoom it seeni njariñ dina jóge ci ñoom bu baax a baax baax di jëm ci yow kon bo fii la ñu yem ak yéen ba léegi ñëwaat yi ak ci beneen secret wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërë ngeen jëf